ah ñu daal di koy nag door ci 88 628 98 98 18 jotaay wax sa xalaat ñu jël auditeur bu jiitu ci ponk yooyu ñu daal di jukki bokk na ci wàllu nag examen yi nga xam ne jur na coow dàq bañ ko daal di nag jaax rawatina ci acteurs yi yëngu wàllu nag éducation beneen bi mooy wàllu nag local yi eh, tax ñu jël ci jiitu ci ligne bi allo. allo allo waaw. Oustaz Adama. la béyk waaw. El Hadj Alioune Wilane Géejawaay Sam Notaire. Wilane ñu ngi lay nuyu ak waa Géejawaay. waaw maa ngi lay nuyu di la ndokkeel bu baax a baax ci weeru tedd yi ñu jógee. waaw. Adama. Mhm. man dama bëggoon wax ci wàllu coalition yooyu nga xam ne tey euh, parti opposition yi ñu ngi koy tabax man nag gis-gis bi ma ci am mooy neex a jàggirul rek ndax yaakaar naa ne ñoom seen jëm bopp bu fekkee lu waay rendi ci sa loxo lay nàcc rek loolu moom yaakaar naa ne kon ñun dañuy civilé parce que nag yaakaar naa ne ñoom ni ñu nekkee ci réew mi. ak ñi nga xam ne ni la ñuy doxalee ah man de jàpp naa ne ci kàttanu yàlla ganaar du topp kii taxani di bàyyi kii soq ndax tey ci tey fii ñuy waxee ak yow ñu ngi wàcc euh, ànd ak excellence président de la république dem fële ci région de Kaffrine nga xam ne tey hôpital ba mu fa liggéey waxuma la sax biir biir Sénégal mais sous région bi amu fa noonu la amee Kédougou noonu la amee Sédhiou noonu la amee Touba kon ñun kii ñaanda tey li ñu may saas mooy ah Adama. waaw lee gën a yokk jàmmi Sénégal nag li ko gën a waral mooy. Mhm. waa ji moom day def te du wax. day liggéey te du wax ndax yaakaar naa ne ñu ngi woon ci wàllu avion bi. léegi nañ ko fa ñukk xam nga ci lu ñu nekk nekk nii. tournée économique bi. naan tournée politique. waaw mais kii liggéey nag boo ko rombee doo ko wax jërëjëf. kuy lëmb yaatee daagu fañ la nobee. Macky doxal ba mu neex la. ndukkumaan ñun xam nañ li ñu fa def. ndax tey ci tey dañ daan béy muy lambu duñ du am fu ñu fajoo. dañ daan jógee sa euh, Kaffrine di ñëw Kaolack yaakaar naa ne li des ci yoonu Kaffrine Kaffrine Kaolack woowu ci ay nit ñu woon faju ji ah kon boo ñu tabaxalee euh, lu mel ni euh, hôpital bi nga fa def ak Nganda Kaffrine bee nga xam ne yaakaar naa ne ñëpp a ko doon jooy nga ñëwaat aussi awaat yeneen xeetu mébét waaye nag na maa ngi lay wax ne la mébét moomu boole ci joli paase càngaay boolewaat ci biritel bi nga xam ne moo wéeru diggante bawol nga xam ne mooy jaar fu mel ne xel xom waaw ah, mu ngoog daal nay matal ñu xaar keneen ci liin bi ñu jël ko ba tey Pape Laye ñu woy jotaay wax sa xalaat la 88 628 98 98 allo allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adam. waaw. Bàcc siis Kër Madaro. Bàcc siis ñu ngi lay nuyu. maa lay nuyu di la ziar. ñu lay nuyu di la ziar. nuyu nag bu baax Oustaz Alioune Sall. Mhm. di ko sant di yi neex na macha allah. maa ngi ziar Sénégal gépp di ñaanal ñëpp jàmm di ziar nag njabootu si laaj Malick yëpp leen ñaanal jàmm Adama. waaw. maa ngi sant bu baax na di gërëm waa armée Mali man daal Mali ni ko armée bi yore neex na ma trop. Hmm. léegi bu ñëwee ci euh, wàllu élection yi. Hmm. Adama. waaw. en tout cas Macky Sall moom mi ngi mi ngi ci yoonam moom. Hmm. moom xam nga gars yi ci ay affaire coalition lañ toll. Macky Sall moom ci li mu toll mooy inauguré ak xool li nga xamante ni moom la war a def fii de euh, élection yi incha mu jéem ko def jéem a satisfaire askan yi parce que affaire bi askan yi ñooy fal gis nga ñun ñu ne ci rajo yi loolu dara ci population bi maanaam ñooy woote ñoo ne Walfadjri ñoo ne RFM ñoo ne Sud dëkk ku ci ne dëkk ba nga dëkk mënoo bu doon yow doo dong doo ko gañe kon nag ku nekk da ngay am yaakaar waaye nag askan wi ci boppam ñoom ñooy tànn waaye askan wi tamit ci biir tànn gi ah yow kii kii ñi bëgg ñu tànn leen nañ tax ñu tax ñu tànn leen képp koo xam ne nag ci benn bokk yaakaar nga nekk yow moom wax dëgg yàlla président ma Sall mi ngi leen di liggéeyal ndax mi ngi mi ngi mi ngi tabax hôpital mi ngi defari tali tali ngànd bi tey ñëpp ñëpp ci kontaan. déggu naa benn ancien député boo xam ne ndeysaan moo moo nekkoon combat tali ngànd tali ni nag les maires sortants gis nga moom euh, Adama. ki moo war moo war am problème mais gis nga ki ba pare la koy falaat moo koy def. ku bëgg a falu defal ni meeru ñaaxeen di def mu Moustapha Sylla yëgal saw askan di taxaw ci seen mbir boo leen tàllal loxo ñu ñu ñu ñu votel la. waaye gars yi ay te kese naxati béy comme ni ko ñu daan waxee dëgg la de waaye nag mbiru askan wi da koy joxe de yow kii euh, Adama. Mm. rajo du ko joxe télé du ko joxe. Mm. dañu leen jege askan di dimbali leen seen i soxla ñu ne moo kër daara moom nañu weer dafa état civil rek ñu soxla kii di ñu bañ a demati nootoo. Mm. wasalaam. waa ñu daal di xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko 88 628 98 98 Pape Lay bitim réew 33 841 22 33 beneen auditeur allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Adama maa ngi lay nuyu di nuyu Pape Lay di nuyu mhm, man la maar américain di woote fii ci New York. waaw. Euh, Adama man li nay conseil sénégalais ci élection locale yi di ñëw. Hmm. bëgg naa peuple Sénégal yi nga xamante ñu ngi déglu rajo bi justement di déglu Sud FM ak yeneen rajo. Hmm. buñ dee dégg si ñuy waxtaan ñoom ñëpp nañu dem di jënd ci seen i carte électeur ak seen i carte d'identité ñi nga xamante ne dañoo amoon extrait yoo xam dafa jeex. Hmm. wala amuñu extrait bu baax nañu dem ci état civil. wala ñuy dem tribunal wala ñuy dem ci commune bu leen jege ñu demander naka laa mën a def ba defaraat samay arme ndax élection yi mi ngi ñëw te yàggatul affaire Macky Sall avion beeg tournée économique nañ ko teg fële ñu jublu ci fexe ba am arme bi parce que booy xeexi da nga yor arme boo xamante ne ki ngay jàkkaarlool bu la dóoree nga dóor ko bu yàggee yaakaar naa jàmm day ñëw opposition bi. jëru ñuy wax Macky Sall ci affaire avion beeg loolu. li ma leen wax moom mooy seen campagne actuellement nii nañu wàcc dem waxtaan ak askan wi parce que xam nañ ne Macky Sall daaw am na lu ko daboon ci nawet bi ren nawet baa ngi nii di ñëw mu waroon a taxaw li jënti loolu def ko lu def tournée économique pour préparer élection locale yi di profité di samp ay meeram yooyu moom day tardeel boppam te Olof Ndiaye nee na wàcc daanu ci gën a gaaw mais bu ko tegee ci yoon rek nit ñi dem voté ci urni yi ku ci nekk kala campagne nga gis programme bu baax peuple boo la fal yàlla xam na ne Macky Sall rakkam du falu nijaayam du falu ay xaritam du ñu falu te benn bokk yaakaar du am dara ci élection locale yi di ñëw bu ko fekkee te tal ko mu ànd ca jàmm ak salaam maa ngi nuyu gars yi nekk ci réseau sociaux yëpp fan yi nañuy waxtaane loolu lépp lépp lu bokk ci élection locale yi dugg la di ko waxtaane Macky Sall dina xam ni lépp dëgg la sénégalais yi nañ ko mere nañ waa benn bokk yaakaar lu mu fi mën def Sénégalais yi mere nañ ko. ok euh, loolu di jàngatam ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi euh, Pape Laye biir réew mi bitim réew jotaay wax sa xalaat 88 628 98 98 allo. Oustaz Adama. waaw. 93 point 2. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi koy déglu maa lay ziar Oustaz. waaw kay. Oustaz maa ngi maa ngi prévenir président bu ñu bëggee organiser euh, local. il faut mu équiper la police la gendarmerie. Mhm. Adama li fi xewoon rek euh, la police la gendarmerie mënuñu koo dékku te élection locale day élection jongante bu bu doy waar. te xale yi ma gis nii ça va chauffer man côté boobu rek laa koy laa koy laa koy ñaax quoi. Hmm. te man sama réew commune bee ma nekk moom vraiment moom ñun moom xam naa dañuy changer maire a oustaz Adama. Hmm. Euh, di remercier Sud FM. merci beaucoup. Euh, mu nga Pape Laye euh, loolu di jàngatam moom it euh, mbokk moom ak waa 93 point 2 ñu xaar keneen ci bi ñu jël ko wax sa xalaat la ñu nekk 88 628 98 98. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum rahmatullah Adama waaw. Ah, maa ngi leen nuyu di la seet di nuyu waa Sud yëpp. ñu ngi lay fay ñun ñëpp waaw. di bëgg a wax rek ci élection yi xam nga fi ñu toll nii mbir dafay toll foo xam ne wax dafay jeex. xam nga hmm. Sénégal boo xoolee ñun bi ñu ñëwee ak ñu ñu fi jiitu yëpp dañu doon xeex ci élection. Hmm. werante bi maanaam lu ma bëgg a wax jeex na ci garan place ak salon yi werante bi léegi mooy citoyen bu nekk te am 18 ans. ci sénégalais da wuti sa carte d'identité ak sa carte électeur da nga am droit pour ñu jox la ko ci ndox mi ngay fay ak impôt bi parce que ak foo mën a féete ak foo mën a dëkk ci Sénégal lu mu gën a sori danga ko war a am bu bés ba jotee nga dem tànn ki nga xam ne moo la doy te kenn bañ a salfaañi ak kenn ñu jox ñi xañ ñele loolu mooy sofe dëkk bi dëkk bi muy sama mbokk yi nekk surtout caaroy géej yéen a ngi di marche fan yi yépp dem leen ngeen inscrire ci liste yi ngeen impliqué wu ci seen doxinu dëkk nu muy doxee wax bi daal dafa jeex tëli ak euh, mbedd ak robinet ñoo yam dëkk yi ñu nekk nit ñi développement fi ñuy waxee développement yow dangay ngay rus loolu sax mën a intervenir parce que franchement fi ñuy waxee dafa nekk xale trop trop trop trop trop hmm. parce que ñun dafa mel ni tëli daf ñu jomb dafa mel ni ñun hôpitaux daf ñu jomb fii hélico yi boo amee soxla boo xam ne matul sax 10 kilomètres hélico mun na la jël léegi yóbbu la ci hôpital bi wàcce la ci kaw ah bu nit juddoo fii fi ñu koy njëkk a yóbbu liir bu juddoo pour teral ko mooy hôtel boo xam ne nii c'est comme hôtel Teranga bi nekk Sénégal foofu liir bi bu ñu ba docteur yi pare ci moom foofu lañ koy yóbbu ak yaayam mu noppalu ñun war nañ yegg foofu ñii ay nit lañu wax ji wax ji daal léegi xuloo moom jeex na. Hmm. na nit ñi dem inscrire bindu yor seen carte d'identité ak seen carte électeur ngeen tànn kenn ku nekk tànn sa ku la neex. Hmm. wax jeex Sénégal tëleeg ñu bëree bëri mel ni man mbir mi il faut ñu liggéey bàyyi politique du métier nit da ngay am métier. politique da ngay bëgg sa réew patriotisme la hmm. mais doo ko def métier def ko tukki kaay nit ñi jaratuñu fukki junni wala saako ceeb nit ñi paase nañu loolu léegi nag yéen a xam nu gars yi def rek baax na mais am leen seen carte ngeen voté ci kenn ku nekk tànn ci nga bëgg hmm. jërëjëf waaw ah. ñu daal di xaar keneen ci ligne bi mbokk moomu jaajëfal ko biir réew mi ak bitim euh, réew ñu jukki woon ñaari ponk am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. waaw. ndongal Cheikh Diop yabal di moo leen di leen siyaare di nuyu sa technique Cheikh. Cheikh Diop waaw ñu ngi nuyu mboolem wax sa xalaat ngeen di waxtaan tey jii muy lu solo rek. Hmm. li nga xam ne mooy maanaam local yi nga xam ci lañ jëm tey jii. waaw li wolof Ndiaye ne dem wuro dem na kenn waxe dem na nañ daal hmm. yaakaar naa fi mu doon tey li ci des mooy fi mu doon kenn ku nekk nga am fulla ak fayda. Hmm. bu fekkente ne maire ba fa nekkoon na doon jëriñ askan wi yaakaar naa ne bu boobaa dem soo jotee askan dañ ko wateel. ndax yaakaar naa noonu de fii lu nekk tey jii muy yaakaar naa diggante Moustapha Diop ak maire bi nga xam ne moom la dëkkal muy monsieur Thierno Diagne yaakaar naa ñi ngi jege boo bëgg na la sa ngor may nga bañ a xas kenn wala nga bañ a saaga kenn wala nga jéem a bañ a yàq nit ki mooy nga dayere carte électeur dem wuti wax ak nit ñi convaincre su ñu leen defee ne tax ñu jar ñu faral la daañu la falaat man nag yaakaar naa ne fii tey jii muy fii ci région Louga yaakaar naa ne maire yu bari yi fi nekk yaakaar naa ñi ci ëpp yaakaar naa ne ñu ngi liggéeyal askan wi yaakaar naa ne ndax jege nañ seen i militant ñu ngi waxtaan ak seen i seen i seen i nit yaakaar naa kon loolu mooy mooy maire ànd ko président de la république gis nga ko tey jii li mu immigré xam nga tey jii président Macky Sall fi ñu toll tey jii yoon wi mu aw ak yoon wee yoonu dem yoonu côté nag yoon wuy dem nag képp koo xam ne ne bëgg ngaa dem da ànd ak kay ku bëggutu dem nag fokk doo ànd ak kii dem président Macky Sall xam nañu ne ab liggéeykat la dafa ko doon liggéey ci nguuru président Ablaye Wade ba ñëpp xam ne doon na liggéeyal Ablaye Wade mu jël mu jox réew bi am maanaam euh, coronavirus bi am tey mu def ki doon la gis nga émigré yi muy lii muy émigré tey jii mboolem région boo dem nag président Macky ngaa joxoon joxal nga lan fa def kon yaakaar naa nit loolee def da ngay saw askan saw askan wóolu la bëgg la ànd ak yow ca la nga leen di liggéey di la fal yaakaar naa ko tey jii ñu nekk fii dem noonu la ñuy liggéey mu mun a Moustapha Diop ak Thierno Diagne fii hmm. nga xam ne mooy conseil départemental ba ñu Amadou Bari si la ñu jël askan bi nit ki mu ngi liggéey da nga xam ne mu ngi liggéey ku liggéey mu ngi jox baax na jërëjëf ah, Pape Laye mu ngoog ñu daal di xaar keneen jël ko kon daal di nay matal ah, ñaari si millième jotaay wax sa xalaat wàllu njàng meeg njàngale mi programme bi wala rek ah, lii di calendrier bi ñu puus allo waaw asalaamaaleykum waaw waaleykum salaam sëñ bi ah sëñ Adama. waaw. kii Soy bu Sowla Pikine. waaw ñu ngi lay nuyu Soy. ñu ngi lay di leen ziar. waaw ñu lay delloo. waa di wax na ñëpp waaj rek. Hmm. ginnaaw élection locale la ñu wax. Hmm. waa nan ko laaj def ko ci jàmm. ku fal ku falu xam ni falu ko ñi faluwut bàyyi ñi fa ñi ni fal ñu liggéey mooy fula mooy fayda moo gën nekk yi di ci ëjj di ci indi ay problème jaru ko ci. Hmm. na ñëpp defaru ko ci bëgg liggéeyal sa gox rek du mu tuuti tuuti boo delluwaatee sa gox di la di la jox. boo ko liggéeyut it boo delluwaat sa wax kenn du la jox ku ci mel ni Isaaxa Diop meeru Pikine Est nekk jàmbaar joo xamante ni si wax dëgg yàlla moom fu mu laajee rek Pikine Est dinañ ko jox ndax jàmbaar la benn yoon da laa ko mos a ko waaye la muy def ci Pikine ñëpp teg nañ ci seen bët. Euh, ku fi di jëpp nag ba nga xamante ni si Pikine jëpp jubóo na moom may wax président Macky Sall ku ci mel ni Isaaxa Diop na ko dooleel ndax jàmbar la joo xamante ni sii rek. li muy liggéey ci Pikine ah, waxuma la commune bi mu dëkk waaye dafa jël département bépp ñëpp ko xam te meeru képp la na jàppale Isaaxa Diop ñu liggéey Pikine Pikine jëm kanam ndax Pikine lépp lu Macky Sall musa laaj rek jox nañ ko ko te Pikine war sa mën a def gannaaw te it lu ci bari manqué na fi donte Macky Sall lan àndal lu bari manqué na Pikine kon nag jàppale Isaaxa Diop jox ko ci cër yu mag yi Isaaxa Diop mën a liggéey Pikine ndax jàmbaar la te wane na ko jërë ngeen jëf. waaw euh, Pape Laye ñu xaar keneen ci ligne bi 88 628 98 82 di ci ay local yeeg coalition yi nañuy def ba gox goxaat yi ñu daal di ci rek indi ay rek euh, coppite benn ponk la ci bi ci des njàng mi ak euh, njàngale mi 88 628 98 98 Pape Laye allo salaamaaleykum. Alaaji Adama. waaw. kii dañ jaaxal naa Caajaay moo lay siyaar. ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu waa Caajaay. waa Caajaay jëpp nga siyaar di siyaar sa technicien ba Pape Lay Sose. waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaar di siyaar Mbaye Lay fële ci Cambérène. xanaa di dénk askan bi leen daan dénk rek nañu bàyyi yee fitna ci wax nañu bàyyi yee fitna ci jëf fitna xajul ci kenn nguur gi kenn man xeex ak moom wala ngay bëgg a xeex ak moom opposition bi nag fu ne la ñuy waxee fu man bala maa àddina sàppi ñu ne opposition bi ana opposition bi ba ñu ba ñu indiwaat beneen kuréel naan MDD ñooñu ba ñu ba ñu juddoo la ñu dee ñooñu kenn di félicité bu baax nag encore une fois président de la république borom tollu tali yi borom tollu courant borom tollu hôpital yi kooku yaakaar naa ne moom benn bokk yaakaar kenn mën ci moom la ma leen waxoon dama bërki dem ñun Sénégal bu ñu bëggee noppalu nañu fal président Macky Sall à vie ndax li fi liggéey depuis mille neuf cent quarante cinq ba léegi amul benn président bu ko mos a liggéey kon nañ ko fal àgg te noppalu mooy borom tool yi yi borom tool yi séddoo yi borom tool yi forage yi kooku mooy président de la république borom tool yi hôpital yi borom tool yi tali yi bennoo bokk yaakaar nag bu yeboo ñu tëdd nelaw ndax kii gis na fi opposition borom gëmee yu nàcc ay mer gembu MD yi nga xam ne dee nañ bu yàgg ñooñu mënuñu ñu fekk kalandoo sax mënuñu am ku ci dem suba suba suba bu ñu bëggee ñu dem élection kenn ku ci ne la fees kalaat opposition bi mënoo ko am wala lu fees Jakarta mënoo ko am uus yi ñu rey fii ak wax ju bari nañu fal président Macky Sall ak bii ginnaaw boo paasee xalifa général ku ñu daal di fàttali ci local yi dañu daal di nag nekk waxuñu présidentielles yi ñu daal ci sampaam ba laaj ak naka la ñu taxawee gox goxaat yi waaye itam ah, coalition ak naka wàccaay yi ñu cay def am na keneen allo. allo oui Adama. waaw. maa ngi fi yow nag. waaw maa ngi lay nuyu Mamadou Diop la AIBD. waaw ñu ngi lay nuyu Diop. ñu lay nuyu di la siyaar di leen ñaaneel bu baax euh, di sant bu baax euh, ndige sant bu jóge ci ci trans waa aéroport yi trans taximaane aéroport yi ci intervenir ndekki li barki dem vraiment kii nañ ko bu baax a baax ñu ngi ko tasaaroo sax ci seen vidéo yi kon nag si DFM tout ça ñu ngi koy apprécier di ko sant. Ah. bon euh, ñu dem ci affaire affaire locale yi. affaire locale yi moom comme jàpp nañ ko nañu bàyyi kenn ku ne rek ndax bala moo man li ma gën a jaaxal day naan carte d'identité yi carte d'identité yi carte d'identité yi nit daa war a am carte d'identité sans élection sax carte d'identité élection rek taxul mu jóg te aussitôt yow nan la mën a xam ne nit ñi ñi jot nañ seen carte ak jotuñu ko donc affaire carte d'identité moom dañ ko war a régler man ñi ma xam ñëpp am nañ ko alo maa ngi lay dégg bu baax a baax. waaw man ñi ma xam ñëpp am nañ ko kon c'est affaire carte d'identité yooyu nañ ci dem. ñu dem ci élection yi ci jàmm ak salaam te def nii nga xam ne ni la euh, chrétiens yi lii ñu wax tey jii nit ñi nañu euh, rewe ci loolu nañu góorgóorlu indi jàmm ci réew mi ndax jàmm rek moo mën a amal nit ñi moo moo am solo ci nit ñi leneen amutu solo kon nag li ci def élection ñëw na kii ànd naa kee kee amut ak yëpp amu ci solo kenn ku nekk na jël kartam bu élection wote jotee mu dem wote ji waaw ndax bu ñu bu ñu compter rek ci problème yi amal man dama yaakaar ne problème bi amal ñun ñëpp dañ ko war a regretter kenn koo xam ne am nga ci ay responsabilité wala nga war cee wax loo xam ne lii dina tax loolu di ñëw da ko war a bàyyi ndax affaire boobu même ku ko provoqué woon sax xam nga ne li nga provoqué woon jaaduwut wut ci yoon te indi na nit ñu problème hmm. kon nag nan góorgóorlu nuy sàkku jàmm ci réew mi loolu moo ci baax nan ci wut jàmm du hmm. te bu ànd jotee kenn ku ne dem ànd ak ki nga bëgg a àndal mais nañu bàyyi réew mi mu dal jërëjëf ah ngoog eh, Pape Lay mbokk moomu wootee ay BDN ñu daal di koy jaajëfal ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi wax sa xalaat la 88 628 98 98 ñu jël keneen. ki la jox nga lekk bëggul nga dee jàpp naa dootuma bañ allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw bi. Oustaz Adama Ndione. waaw. Alaaji ñu ngi lay nuyu waaw. maa ay bi mhm. euh, am na yar am na teggin xaatam rafet na boog trop Mamadou Diop ñu ngi kontaan ci bu baax di bëggee. Mhm. li ah, ah, moom laay wax. waaw. élection yi daal dañ ko dañ ko dëgmal mooy faral gox goxaat yi. waaw gox goxaat nag yoonu président Macky Sall nekk ci président Macky Sall du fal. Hmm. président Macky Sall moom Sénégalais yi ñëw ko fal ko mag fa mu ne. Hmm. li ci des ñun ñooy fal seet ka nga xam ne moo nekk suñu gox nu fal ko. Hmm. kon li ci des des na ci loxo li wax ni ngi nan nga xam ne ñoom dañ liggéey dañ mi li ko suuxal yëpp mooy gox goxaat yi bu doxoon rek réew mi léppay dox. président Macky moom la ko war ma nga ca kon nit ñi ñu war a xool ki ni fal ñu fal ko ba tànn ay xaritoo kii sama dëkkandoo la mm. sakana ma ma neex nanu seet ko am compétence ki nga xam ni dañ ko dafa man ñu jox ko oustaz mm-hmm. oustaz waaw oustaz si Sénég sénégalais laay woo ma ñu leen oto bu paanee oto mm-hmm. su paanee mécanicien bu koy dépanne mais kenn du ko ci ab tailleur mm-hmm. nanu xool ñi man ñu jox leen ñu suqali gox yi suqaliwaale réew mi. Hmm. man nag mooy le professeur hmm. li léegi mu jeex bu soobee yàlla yàlla ci yóbbu jàmm salaam. duma man sa moroom duma mu jeex tàkk. Hmm. wa salaam. waaw ah. ah, kon ñu xaarati keneen ci ligne bi Pape Laye mu ngoog jotaay wax sa xalaat ci wàllu local beeg jàng meeg njàngale mi rawatina ak arminaat bu bees bi aju ci wàllu examen yi. ñu ah. jël keneen allo allo waaw man la El Hadj Fall eh. mais Adama élection lu am solo la mais eh. élection processus la eh. élection bi ci jiitu nga am fichier si électoral bu leer naa ñi ñu war a am carte d'identité jot seen carte d'identité parce que tey élection yi ñu jëm yora problème bi rek lii la parce que bu buñ ko fàttali ko am na ay carte d'identité yu bare yoo xam ne nii dañ ne leen seen borom munta wate loolu lañ ci dund Hmm. donc carte d'identité boobu boo ko ja boo ko ŋàddee ñëw ci fichier électoral bi ñu bind ci gannaaw ne mënut a bind léegi ci bis bi yow naka nga koy lijjante loolu dañ ko war a lijjanti bu ñuy wate benn loi wane ne loolu dafa nul képp koo xam ne nii inscrire nga sa nekk ci liste bi bu watee jotee doon tuñ tenir compte ci ñu bindoon ci sa gannaaw kàddante hmm. loolu da nga koy waxtaan parce que ah, élection hmm. jeu la Mhm. benn jeu la boo xam ne nii dañuy taxaw définir naka lañ koy defee mhm. kiy gagné nu muy gagné kiy perte naka lay perte ñu waxtaan ci ba déggoo dem ci jeu bi bu jeu bi jeexee doo dégg mhm. benn baat élection 2000 alternance dafa am dégguloo benn baat élection 2012 alternance dafa am dégguloo benn baat parce que avant ñu ciy dem dañu déggoo woon ci fichier bi boo xoolee élection 2012 kenn musul contesté fichier bi kenn musul contesté Eh, ñi nga xam ne nii ñooy ñoo ñoo ñoo ñooy saytu élection yi. Hmm. li ñu doon contesté est-ce que Ablaye Wade am na droit dem wala amul droit dem mais bi ñu demee bay dem amul leneen mais lii nag fiisi bi dafa lëndëm ndax dañ ko defoon ci internet ku bëgg a gis te code électoral ne képp ku nekk candidat dañ la war a jox fiisi bi nga xool mu leer naññ ci yow te yooyu yëpp amul. donc suñu bëggee élection yu transparent buñ ca jógee nit ñi dem liggéey yi nañu leeral fichier bi nañu leeral respecté code électoral bi lépp loo xam ne nii may na ko ñu may ko candidat yi lépp loo xam ne daf ko xaj ne ko mais wax dëgg yàlla moom je ne ci ay élections locales. ah mu ngoog kon nag euh, ñu daal di xaarati keneen kon mu ngokk ci nekk ci sa jàngat Pape Laye ñu wéy bi réew mi bitim réew ñaari ponk yooyu ñu jukki allo. allo. allo waaw. salaamaaleykum sëñ bi waaw waaleykum salaam wa ñoo ngi ziar bu baax. ñu lay delloo ziar. ñoo ngi ziar waa groupe. waaw. di sam ñëpp ñu diglu mhm. Ibra Golfe Sud. Ibra waa ñu ngi lay nuyuwaat. li ma lay xamal daal mooy Adama benn atta daal dafa am. Mhm. ku sa gémmiñ di nàkk doo wax jàmm. Mhm. ñi nga xam ne xam nañu duñ dem élection ñoom ñooy ruux nit ñi ñuy wax ñoo fa ruuxu nit ñi ba problème yi am fii. da lay wóor ñoom xam nga ne ñoom mënuñoo dem élection te duñu élection. duñu wax jàmm mukk ci réew mi nag nu ñu ci àll beeg ñëpp nag ñu ci bari nga xam ne bii ñoom musiba rek la ñuy wax bu ñu xëyee ñu ngay raas lu ñu war a wax lu bon waaye xam nañ xam ne ñoom seen bopp duñ dem élection ndax amuñu droit mi surtout kenn du ak accordé ñu dem élection ndax jeexal nañu nit nag day koree comme parti socialiste ñun parti socialiste yi bañ ñu daanee danoo muñ xam ne ne la wur ni wuti war waaye am na ñoo xam ne ñi mënuñu di gérer Macky Sall fi mu ne waaye nag danañ muñ danañ muñ xam ne ne la wun yàllaa ko dogal yàllaa ko fal te du woon ñoom ñoo ko mën a folli ñoom tant que matalul. Macky Sall. liggéeykat la boo xam ne bii li mu fi liggéey ci Sénégal gi ñu bari gis nañ ko ci. surtout hôpital Fatick bee bañ ko ba Abdou Diouf a commencé Abdoulaye Abdoulaye Wade jaar fii ko. hôpital Ziguinchor Abdoulaye Wade ñoom Abdou Diouf commencé ko Abdoulaye Wade jaar fukki at ak ñaar defaru ko ba Macky defar lépp defar bu Koungheul defar bu Kaffrine defar bu Touba defar yeneen ak yeneen. kon na la wóor ni moom ci boppam bu ñu ko gañee tam na la wóor xam ne am na liggéey bu liggéey boo xam ne ci Sénégal bii kenn du ni liggéeyu ko fi. kër diine gu nekk Sénégal am na lu mu cee def. kon boog fu mu cee def élection bu ñu ko fa gagné tam ne la lam fa def de def na ko. kooku moom benn problème bu ci nekk. kon nit day goree tey wax yu bon yi ñuy wax di di di di wax yoo xam ne yii di ruux nit ñi jeunes yi dafa jëlee seen carte ñëpp jëlee seen carte. élection bu ñu ko defoon suba suba. majorité Macky Sall moo ko yore. ndax fi mu ne def na binduwuñu. kon day xam ne da lay wane ñoom ñu naan nañ def nañ def. nañ ko def suba bu ñu ko defoon suba. majorité Macky Sall yoram ba tey mi moom te loolu woon kenn mu ko daan boobaa. Hmm. kon nañu muñ wuti ay carte jërëjëf. Hmm. Ah, ah matal na ñu xaar keneen bu kuy ko waxtu yu maye Pape ñu jël ci bitim réew 433 la 841 22 33. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Oustaz Adama. waaw. El Hadj Xaas Mbaye la ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu waa. Mbacke Ba 91 point 2. waaw daa ko vraiment mënoon na maa coupé ci golf maa ngi ñaan ci doole ñaari junni kontaan naa ci moom trop parce que Oustaz Adama. Hmm. man dama bëgg a xam gars yi nga xam ne ñoom ñoo yor seen làmmiñ di wax ne ay kandaalan ak ay leader politique la nan wax seen gox fan la ñuy dem ci élection ci Sénégal ñu fekk leen fa gañ yéen nan wax mu leer xam nga dañuy dem élection dañuy dem élection ñoom fan lañ dem fan mooy seen base. damay tàmbali ci ku mel ne Bougane Gueye Dany Sonko ak ñeneen ak ngeneen ñi yor seen ak ñuy wax ñëpp ñoom fan la ñuy demee élection fan ku mel ne suñu député bi ma dëkk fii am Abdou Mbacke Bara Dolly fan lay demee élection xam nga nit ñi dañuy bàyyi askan wi nii réeral ñoom woote wul woote lu wul liñ man mooy yàq ak wax lu bon ak wax lu ñaaw am réew nag loolu du ko defar am réew lu koy defar mooy boo boo koy cim réew da wax lu koy jagal di wax lu di wax dëgg loolu moo am solo waaye nañ toj nañ yàq amee ku ne Amérique mënut a fal ku ne Mbàkke ku ne Italie mënut a fal ku ne Louga élection ñu dëkk ca gox ba ñooy voté ñun dañoo am suñu kër ñoom dañoo jël leen seen carte ñun suñu carte électorale yi suñu wàllu si tey suba suba suba élection amoon ñu voté sénégalais boo xoolee quinze millions habitants la li voté matul six millions ana ñeneen ci def xam nañ bàyyi ay caaxaan di léeri askan wi tey boo ñëwoon police Mbàkke boobu li fi nekk ci Canada mën na un million mais seen borom jëliwuñ ko da lay fekk sa kër na kaay jël sa carte d'identité carte ku ko bëgg sa bàyyi lay bind boo juddoo mu déclaré wutal la carte d'identité wutal la kayitu juddu président wutal kenn carte d'identité juddu loolu mooy dëgg nan ba seen caaxante yer seen i kàddu salaamaaleykum wa taala wa euh, ñu jël keneen ci ligne bi 88 628 98 98 beneen auditeur ci euh, ligne bi allo. ki ne jox nga lekk bëggul nga dee. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi. Adama. waaw. damay xamal ne ah, maanaam am am na am na nit ñi nga xam ne ci ay business business nekk na seen affaire bopp. ñu mooy ci élection locale yi man gis nga mas naan dina la fi benn anecdote Kaolack. Mhm. mas naa fa gis ay li si laaj si ñoom. Mhm. loolu am na affaire bu fa nekkoon li ma lay wax dama ko fekk di nga waaj ji. waaw parce que borom tubaab wax décision gagné ko gagné élection fekk leb na banque yi yoon ci banque yi si Kaolack yëpp mu ko ci campagne yooyu. yooyu mhm. du nga ko waaw mooy. lii ba tax na ko laaj waa Kaolack. xam nga fan la mujjee su fekkee musulman demoon na ba màkk mais bi ñu nee déception ak naxaar moo ko jaf ba mujj baptisé wu doon doon bi yaay wal kitaab ko jamonte. Ah, ah, Pape dafa mel ni dem na ah, kon ñu daal di bu fekkee jeex na ñu daal di ko fi rek yemale bu fekkee keneen xaj na itam ñu daal di koy rek dugal allo. allo ñu jël ku mujj allo salaamaaleykum. oustaz Boy Malika na nga def. ñu ngi lay nuyu waaw Boy Malika. naka yite yi. ñu ngi sant yàlla bu baax. man daal yaakaar naa ni gàcce la ci euh, mhm. ku def 40 de pouvoir. Mhm. defaroo fi dara Ablaye Wade ñëw defar ba Macky Sall ñëw du ko defar. Mhm. mais 40 ans de pouvoir. mais Macky Sall tey ñu ko tànnee ci ñooñu la bokk parce que tey ñoom ñoo ko doon xeex. te ñoom ñoo daan wax ni 40 de pouvoir ñi fi def 40 de pouvoir ñoo fi deful ñu ni lii Ablaye Wade moo fi def lii wala moo mais gis nga gis nga Adama. réew mi ñun ñoo ko bokk nañuy am franchise di wax dëgg. c'est ça le problème. mais man li am Cheikh waxoon rek laay wax gis nga réew mi tànk ginnaaw rek la am amagul tànk ginnaaw amaguñu njiit parce que xamuñu préférence ak choix. nit ñi xamuguñuy ku ñuy tànn ak ñoom ku ñuy neex la ñuy tànn. waaw kenn ku nekk nag man ngaa coow élection yi ñëw na mais li ma lay xamal moom laa lay wax rek. la maam Cheikh waxoon ci waxoon ca foire en 86. kenn ku nekk xam xam xam nga ko mën sa bàyyi mais tewu sa bàyyi la gënal kooku ñëpp d'accord nañ ci moom. Hmm. amul sax wax coow li matu ko élection yi ñëw na am na benn waaye auditeur bu téléphoné léegi wax ko ni ñu toppatoo carte yi kenn ku nekk gox ba nga nekk te ngeen fa wóolu ngeen fal ko mu jeex mais coow li matu ko mais ñi fi def 40 ans de pouvoir. Hmm. defuñu fi dara ba ñuy ñëw di motali li ñu fi defoon saa bu ñu waxee ñu naan ñi fi def 40 pouvoir defuñu waaw Pape Laye euh, mu nga kon bi lee xibaar ñu daal di koy joxe kii di Assimi euh, Goïta moo nekk léegi président transition bu réewum nag euh, Mali gannaaw ba nga xamee nag fësal nañu article yi daal di nag yi ñu ci daal di sukkandiku bokk na ci post présidence boobu nga xam ne kenn jëli ko jamono ji gannaaw ba président Bandaw daal di nag tekkee ndombal tànkam article 2 bi di wax ne vice président bi ci wàllu transition boobu mooy doxal nag fonction yi nga xam ne bu fekkee président ba rek daal nay tekki ndombal tànkam euh, moom fay daal di nag toog loolu war nag article 3 bi war na ne kon moom euh, Assimi Goïta mooy daal di nag yore leng yi di ngeen teewlu sax li nga xam ne mooy naataalam di portrait euh, ci xibaaru 22h yi lay daal di nag doon fi la ñuy wax yéen ci xibaaru ngoon si ci kanam tuuti 22h Marie Rosalie Ndiaye ci xibaar yi ci yaatal ga jaajëfal bu baax a baax Papa Abdoulaye Dieye mi ñu àndaloon ci sottalikukaay bi mucc bi di ak jàmm biir gudd fan ak la am